asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 23 octobre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi mel ni ki nag tey sunu làmb moo xam yëglikaay bi di record wala Leewtoo point net fu mu ci mën a doon daal xëy nañ fa bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la nag moom li mu ñu xëy wan mooy combat bi nga xam ne nii moom la Pape Abdou Fall taxawal mu mel ni kii nag mooy diggante Siteu ak Papa Sow yëglikaay bi nag dalal na leen a dànkaafu tarkindaa bi ak piment bi yëglikaay bi na leen day seen diggante yéen ñaar jàppale na defet day interdit nañ ko ci dañu ko ca tere ku mu ci dal rek dina metti ci yow bu baax a baax ba wala di nga dugg ci lëndëm goo xam ne nii crise lay def te pour mu gaaw a dina jafe lool ci yow la ko waral yëglekaay bi nee na ñoom ñaar fi mu nekk nii ku ci ne fa nga jógee tax at moo xam ne toog nga ko bëriwoo akub defet boo xam ne amu ngi nga tegu ci sa awloos wan ñu ay photo yoo xam ne fi Ama Baldé daane ko Sow bu wala boo fi Ama daane Papa Sow ba toog ci kawam ak fa nga xam ne ni moom la Sa Thiès daane Siteu moom itam ba toog ca kawam yëglikaay bi moo xëy ñëw wan ko waaye leneen loo xam ne fi mu nekk nii tamit dañ cay ñëw yëglekaay bii di sunu làmb xëy na wan ñu ko muy ki nga xam ne nii day moo di rëg-rëg rëg-rëg nag ci kay ci kaw Bombardier la xëy daal nee na day li leer ba leer moom Bombardier terewumaa nelaw de mënuma teree nelaw amul lenn loo xam ne ni daal jaaxal na ma ci moom nee na tamit bu dee talent la wala force maanaam doole boo xam ne nii day lépp lu mu ci mën a doon am naa ko ngir daan bombar ji wala daan sax ku dul moom moom daal fi mu nekk nii loolu la xëy wax ci yëglikaay bii di sunu làmb moom mi nga xam ne moo di rëg-rëg bu caaroy mel ni ki tamit wax jooja dañ cay continuer dem ca Leewtoo point mel ni ki nag Bombardier tamit mu ngi ko fay tontu de Bombardier nee na ko waa d'accord yow day da nga maa defoon conseil wala boo koo xam ne nii daal da ma daan laaj xalaat ci làmb waaye comme léegi nag loolu nga wax pare nga te man nga maa daan Bombardier nee na ko namm ca yebu ca ku la ca ba wax nga jël man it pare naa de boo paree rek pare naa ngir defante ak yow mel ni ki nag Bombardier fi mu nekk nii moom it dey la ko Reug Reug wax wala loxo ba mu ko tàllal daa mel ni moom nangu na ko jël ko jàkkaarloo ak moom loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem muy ba tey rek ci diggante Papa Sow ak Siteu ca Leewtoo point net yëglekaay ba nag dañ faa defub gëstu ñoom waa Leewtoo point net ñu ngay xam ne ca biir écurie Fass nag la ñu gëstu mel ni ki waa Fass de la ñu fa jot a xam le daal mooy ñoom combat Papa Sow daal yëguñu ko tey suba waxi nu noppi du président du directeur technique du ko nga xam ne mooy Mbaye wala keneen ku ma mën doon koo xam ne daal combat booba ñoom am nañ ci loo xam ne yëg nañ ko ci waaye bu ñu demee ba tey ci combat boobu ci record Tafa moom wax na fa ak Abou Ndour Tafa Guèye nag la mu xam le daal nee na leer ba leer day combat Papa Sow ñoom yëguñu ko tey suba waxi noppi la ca des nag mooy ñoom waa écurie day màggal gi lañ doon xaar mu passé ñu def nagu daje maanaam assemblée générale waxtaani seenam écurie ak na mu war a doxe ci yi nga xam ne moom la ñu jëm loolu ca record la ñu koy fekk waaye ba tey ca leewtoo point net dan fay dem tamit lii nga xam ne nii day moom moo di ki nga xam ne mooy Abdou Badji wàcc ga nga xam ne nii wala démission ba nga xam ne nii day moom def na ko fi mu nekk nii Leewtoo Planète moom tamit ñëw na ki xam ne nag moo di Ambroise Sarr moo cay defal na làmb loo xam ne day yeyoon a delloo njukkal nee na nag ñoom ñaar déggante guñ ci mbir moomu waaye démission ba itam dañuy dellu sunu làmb rek mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day ka war a jël place Abdou Badji boobu dafa mel ni waxtaan da cay am war a dox ci diggante ministère bi yore wàllu sport bi ak ki nga xam ne nii day wala ñi nga xam ne ñoom lañ dénk làmb ji muy waa CNC waxtaan ba déggoo ba xam boog kan moo war a jël place u Abdou Badji ñii moom seen place jël nañ ko bu baax a baax muy waa Caaroy sur Mer sunu lam ne na li leer ba leer day Caaroy sur moom moom fa ñu tegu baax na de nooy na te neex ndax nag yëglekaay bi nee na treize combats ñu def daal am nañ ca neuf victoire ak li nga xam ne nii day moo di quatre defet loolu yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko mu mel ni kii daal kon caaroy sirme moom loo ca mën a dégg mu écrit la boo xam ne fi mu ne de xale yi daa mel ni nag ñoo ko gàddu ngar daa joo ko di ko doxal bu baax a baax leader yi moom kenn gisatu leen moo xam Issa puy la ay Khadim Ndiaye ma de ak ña mel ni kii noonu ñooñ moom kenn gisatu leen waaye ku mel ni qualifié moom mu ngay nëbbu ak a feeñ loo ci mën a dégg itam mu ngay dem dem benn boo xam ne daal donte am na ndam am defet itam mu ngay jéem a dem waaye Brise de Mer numéro moom maanaam élan bu baax la amoon waaye nañ nag daal daaw la ko dal wala saison bii génn ka ko ko yóbbee moo di Zal Baol moo ko daan jël boo xam ne day bu gaaw a la waaye loo ci mën a dégg itam moom xale la boo xam ne daal mu ngi cëgri ba di am lu mu bëgg Badou Fall itam yëglikaay bi ñëw na ci moom waxuñu ko moom itam xale la boo xam ne daal mu ngi def ay action moom mi nga xam ne moo di Badou Fall kon daal Thiaroye sur Mer moom daa mel ne fi mu nekk nii day mu ngay dox bu baax a baax a baax a baax ñu jànge loolu fi nga xam ne nii day ci sunu làmb waaye leneen loo xam ne tamit dañ koy gis fi nga xam ne nii day moom moo di ca sunu làmb mu mel ni ki nag ah fi mu nekk nii day yëglikaay bi nee na Pa Abdou Fall nag ba mu ñëwee léegi xanaa yeneen soog ñu ngi koy xaar moo tax mu won ñu photo Luc Nicolaï ci biir journal bi nga xam ne nii day moom moo di sunu lamb waaye Pa Abdou Fall mooma nag yëglikaay bi daal la mu tuddee combat si tabeeg Papa Sow daal maanaam combat fast track fast track daal la ko tuddee maanaam gaawal ko ba mu gaaw combat boo xam ne ci ñaari waxtu lañ ko dox mu taxaw mu mel ni ki daal Pa Abdou Fall moom loola la def kon nag gars yi daal est-ce que du fast dafa xew ana ñoom lig Nicolay ana ñoom ñi nga xam ne ñooy Kandji ak ñoom Assane Ndiaye ak ñoom suñ Moodu ñaa fast bi na gën a gaaw na gën a rapide ana jéey seen yokk leen loxo yi affaire yi na gën a gaaw ana ñoom jamaïcain jam fast track bi daa war a gën a gaaw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 yaa ngi dégg te mën a waaxu xam fa ngay fanaane da koo gën a wóor defe naa Real ak Ligue des champions moom <laughs> waaw defe naa mooy géej géej jën yi ñoo dëkk. waaye nag su yoon jeexul waaxu su du jeex am na yaakaar ni ren PSG moom dina jël euh, coupe bi. incha allah yàlla baax na di ñëw nag si jàngatu arène bi euh, suñu lam tee nag dafa xëy indi euh, combat bi ba léegi diggante Papa ak ki nga xam ne mooy Siteu nee ñoom ñaar defet interdite parce que ñoom ñaa ñëpp si defet lañ jógee waaw défaite interdit ah waaw c'est normal ah parce que tamit ku ci ne bi ngay mujj bëre sa combat da ko ñàkk bu dee Papa Sow la Ama Baldé moo ko mujj daan ci Léopold Senghor bu dee Siteu la tamit guy gi moo ko mujj daan ci Léopold Senghor kon ñoom ñaar ñëpp stade Léopold Senghor lañ mujj daanu ñu jóge ca def année balance kon yaakaar naa ne seen diggante fi mu nekk nii moom defet des na ko ca bañ waaye nag du mën a ñàkk parce que faw am ku daanu nekkul nekk nag ku daanu sa carrière day yàqu mais dana metti ci yow. parce que tamit sport moo tëddee noonu défaite la match nul ak victoire mais nag loolu dañ koy wax xëy na juste que rek pour gën leen a ñaax parce que loo ci mën a dégg combat boobu moom mënut a yomb si ñoom ñaar moo xam papa la moo xam Siteu la parce que fa ñu jóge la ak fa ñu bëgg a dem ak li ñu gàddoo kon nag li am ba solo daal mooy ku ci ñëw ca bés ba na nga fexe ànd ak ñi nga war a àndal te pare loolu moom moo ci am solo boo ñëwee nag def li nga war a def def li nga war a def li ci des nag sunu borom moo ko moom ku mu jox ndam nga jël ku mu xañ itam nga muñ te dem liggéeyaate xam ne àddina jeexagul waaye loo ci mun a dégg daal combat bu nara tara tara tara lay doon ni nga ko waxee noonu la combat bu taratar lay doon mais nag combat lu ma tar tar tar ki nga xam ne waa ñu dem nag si record record nag tey dañoo xëy dalal ki nga xam ne mooy Moustapha Gueye Moustapha Gueye muy directeur technique écurie Fass ñoom daal ñoom daan nee na la moo leen jaaxal si combat mooy waa écurie Fass kenn yëgu ko moom mi di wax sax nee na si presse bi la ko la ko déggee loolu la wax euh, Abou Nour si record ah waaw loolu day yaakaar naa ne bu dee noonu mu ko waxee noonu la demee mooy Tafa gi yaakaar naa ne c'est le directeur technique de l'écurie Fass ah, moom mooy directeur technique gu écurie ba kon defe naa tey xanaa bu fekkente ne ba war nay taxaw xanaa ci xanaa yaakaar naa war nañ mën cee jokkoo la tax jokkoowuñu nag xëy na ñoom ci seen biir ñoom ñoo ko xam parce que euh, euh, Ndey Kumba euh, neexum xel mënta bëgg a passé net li géntug jaambur te am na loo xam ne nag seenu gént la ñoom waa Grifaas ñoo ko xam ñoo ne ci seen biir kër laf la xew ak la fa war a xew ak la tax lii am ba ndax lii amul ñoom ñoo ko xam l'essentiel que nag lañ leen mën a wax moom mooy kani rek te loolu la ñuy wax ñëpp mbooloo mu mën a doon ak ànd bu mu mën a doon li ci bon mooy di ànd di taggante di tàggu di jëwante li am solo daal mooy waxante dëgg jéem a ànd te yàlla tax ku ci nekk cër ba nga moom ñu fexe la koo jox bu ko defee te nangul la ko ñu mën a avancer dem donc su mën a avancer dem boobu est-ce que sax Papa Sow si tànk yooyu la bëgg a nekk parce que si Leewtoo point nag nit ñi xamante tey jii Papa Sow su fekkee ni que daaw dafa def saison blanche réglement CNG may na ko euh, ren suy bëri mu bañ bëree ak écurie Fass dem ber euh, daaraam wala boog mu dem dugg si beneen écurie boo xam ne beneen boo xam ne du dul écurie Fass maanaam mun na génn écurie Fass sans pour mu fay fa xaalis pour mun a génn waaw loolu ci l'auto-preneur lañ ko jàngate mais man baax lu ma siy wax mooy xam nga loo xam ne tey ki ki ki nga xam ne ni ki bind article am daa xalaat bind ne lii boo amee lii la mën a indi maanaam tey exemple bu doon day génn écrit ba dara mënu ko ee topp parce que def na année balance nangam sangam loolu ay réglement la waaye nag am na loo xam ne ñun lañ ca mën a wax wala man la ma sa mën a wax mooy kani li am solo ba am solo daal mooy kani génn wala toog loo ci mën a dégg daal waxtaan ba déggoo jéem a avancé dafay gën lépp yaa ngi dégg comme nag déggaguñ ci moom wala ku ko jege ñuy wax waxu génn écurie loola pour wax ci day xaw a jafe li ñu mën a wax daal mooy Papa Sow produit écurie la actuellement ci biir écurie ba la bokk kon yaakaar naa daal bu ñu amee jafe-jafe nañu waxtaan seen biir rek waxtaan boobu sax yaakaar naa léegi mu am parce que record mi ngi xamal ne si gémminu Moustapha Gueye nee na daal nañ doon xaar màggal bi jàll pour ñu def assemblée générale assemblée générale boobu nag daañ si wax kaawu papa sa wax si problème yu am biir écurie Fass muy nag loo xam ne du lu bees Babacar ndax ñu comme lu naan taam di wax rek at bu nekk daal ñu ne Fass def na ay nëpp mais nëpp bi daal dafa mel ni du egg ndax si biir année bi daal foo foo coow amaat si biir écurie bi waa ndëpp de li ma la ci wax rek ndëpp moom bu dee raba tax nga koy def lu mën a doon bu rab bi soxlaa dugub nga indil ko ñebbe ndëpp ba du jàpp bu soxlaa ceeb nga indil ko basi ndëpp ba du jàpp bu soxlaa mboq nga indil ko tamit li nga xam ne nii mooy bisaab ndëpp ba du jàpp kon jéem a fexe ba xam la rab wa soxla nga ndëppal ko da ci am solo waaw bu dee juboo lañ bëgg nag yàlla na leen ko yàlla defal defal ko bépp doomu aadama Euh, am na solo Babacar ñu ñëw nag si ki nga xam ne sunu làmb tey dafa xëy dalal depuis États-Unis Reug Reug Reug la daan kenn benn mbër moo ko teree nelaw muy ancien euh, roi des arènes muy Bombardier nee na ni ko laa na ko pour proposer ko ay combat mu ne ko Luc képp koo ma jox te joxoo ma Bombardier fas yéene ma bëree Babacar. am na ci droit waaw dama ne loolu Reug Reug wax man ànd naa ci kat parce que ku bëgg a doon dara da ngay fexe fekk ki nekk dara nga jéem a defanteeg moom. yaa ngi dégg te dafa am lu mu bëgg a wane si làmb waxal na ko boppam ne na bu dee talent bi la wala bëri bi wala doole bi lépp macha allah am na lu ko ci yàlla may kon c'est très normal mu taxaw nit ki da ngay ñime osé wax li mu bëgg am na droit ne lig koo ma jox ku dul Bombardier du la ko jéggal sax kon na ko lig jox Bombardier Bombardier na ko nangoo may sens loolu moo war a am si làmb ji ñu bëre boobu maa jëbam ngay wax naan na ko may chance moom tamit Leewtoo point net tontu woo na ko depuis France tontu na ko comme li wax rek tontu du forox nee na moom na laaj nañ ko sax naan ko yow sa diggante ak Reug ay xarit ngeen mu ne bokkun dara mënoon am combat mu di ma woo di ma laaj samay conseil mais nag comme que léegi jël na bëtam teg ko sama kaw pare na moo ko teree neex Babacar waaw non loolu mooy li war a am Bombardier depuis France loolu waxit lu am la xam nga laaj la ay conseil ak nangam d'accord nit nit mën na nekk sa mën nga nekk idolam mu lay laaj ay conseil mais nag sport mooy toll foo xam ne su doxee ba war leen a boole da ngeen war a bëree Balla Gaye yaakaar naa ne ku ne xam ne digganteem ak Tyson bëgg gi mu ko bëggoon cofeel bi mu amoon ci moom mais ba leen làmb boole dañoo bëre te terewul tey meilleur amim ci làmb yaakaar naa Tyson la Bombardier ji mii di wax ku ne gis na ni meloon ci Tapha Gueye ci lu mu waxal boppam ñëpp dégg ko ba ko làmb boole Tapha Gueye dafa bëre ak moom loolu mooy am Reug Reug itam loolu mu def kon du lu bees lu fi daan am la am idole di ko laaj ay conseil mais bu ngeen demee sport wàlle na boole ngeen parce que tey su bëree ak Bombardier am na lu mu koy yokkal si carrière am financièrement ak ci sportivement ak lu mu mënta doon waaw ak palmarès bu ci amee ndam mu gën a tee neex tout est possible nag ndam mën na am defet mën na am man si mën na kon daal nañu bëree kon boog la balle est dans le camp des promoteurs comme ni ko tubaab di waxee. ok record aussi mi ngi xamal ne Abdou Badji euh, dalal na ki nga xam ne mooy Amoura Sarr Amoura soo ko déggee mi coach ci équipe nationale de lutte bi euh, moom daal nee na Abdou moom ak Abdou ma waxtaanagunu amaanam si démission am mais daal nee na Abdou Badji defoon na lépp loo xam ne rek euh, war na war na ko def ak ki nga xam ne li nga xam ni mooy équipe nationale bi moom nag nee na wàccoon na ak équipe nationale léegi nee ñu kam moo ko war a remplacer nee ñu xëy na Sitor wala Khalifa Babacar. loolu daal li ci am solo mooy ci lu gàtt ah, Abdou Badji moom c'est le technique def na lépp lu mu waroon def yaa ngi dégg loolu Amoura Sarr wax tamit c'est normal delloo ko njukkal yeewoon na ko dama doon liggéey nag ne ci benn poste liggéey def fa la mu fara def xëy na damay tamit nit a koy def nit ku nite kon ñu ngi ko ñaanal démission boobu bu ko koy kilifaam nangulee yàlla na dem ak jàmm ñi fi bàyyi tamit moo xam ku koy remplacer yàlla nañ def lu raw li mu doon def parce que tubaab moo ne nul n'est parfait amul ku ñu mënul remplacer waaw et personne indispensable aussi euh, Babacar nu dem nag si bilan écurie yi nga xam ne moom la sunu laam def chaque chaque jour tere nañoo xëy dalal bi écurie Caaroy Mbooloo bi nga xam ne Issa Pouye foofu la nekk Caaroy sur mer fi nga xam ne Issa Pouye foofu la nekk euh, nee nañu ren daal seen saison neex na trop ndax am nañu treize combats am neuf victoires ak quatre défaites Babacar waaw loolu de bilan positif la parce que neuf victoires quatre défaites ci treize combats c'est normal parce que tamit caaro sur mer yaakaar naa écurie bu yàgg la écurie bu mag la la ko commencé ci ñoom Khadim Ndiaye ci li ñu xam Ousmane Diop ñëw ba ci ñoom Issa Pouye ay Baye Mandione ñoom ñëpp ay ñoom nees defe naa ku ci ne écrit booba ay xarit jaay numéro jaar nga fa donte ñoom mag ñoom gisatuñ leen mais xale yi ñoom ñu ngay góor lu gàddu écrit ba di ko doxal loolu nag mooy liggéey bi ah vraiment daal ñu ngi leen di ci bilan boobu ñu def ñoom waa Thiaroye sur Mer mais xale itam ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax a baax mu écrit boobu nga xam ne ni ñoom Issa ñoo nekk ca bopp ba Babacar nu jeexale ak interview bi nga xam ni Mamadou Diaw di directeur technique économique Père Diaw moom daal ñoom lañu moom la ñu xëy tey dalal fii tey si journal suñu lamb nee na daal commement bi nga xam ne mooy Papa Sow ak Siteu dafa jox Siteu daal favori si kaw Papa Sow. moom loolu la def mu ne Siteu mooy favori waa xam na xam nga Père Diaw moom technicien la am na lu mu xam si làmb école de yore na ko di former ay mbër kon defe naa su waxee loolu am na fu mu ko teg yaa ngi dégg kon yaakaar naa loolu mu wax tamit dañ ko koy nangul mais si beneen côté bi tamit na foo xam ne loo ne bu ñu ko ëndee Papa Sow mën a nekk favori wu Siteu kaw enceinte moo ko jëkk si làmb ji yaa ngi dégg moo ko ëpple nombre de victoire ëpple ko nombre de combat loolu tamit boo ko ëndee Euh, yaakaar na mën na jox Papa Sow favori mais tamit am na côté boobu bu ñu ca demee mën nañu Siteu favori parce que mooy xale. xale te xale des fois sport dana ko favoriser rawatina sport individuel waaye lu ci mën a dégg daal favori ou wala ñàkk doon favori moom li am solo moom Pa Abdou Fall moom def na leen fast track moom moom waaw rapidement bien fait moom gaawal na ko moom deux bien fait et bien bien fait vite fait et ci deux heures de temps fas fast track ko moom kon yeneen promoteurs yi nañ rek fast track bi na continuer. kon boog comme Ligue des champions rek ni def fast track rek PSG na fast track si kaw Real de Madrid lépp daal dina baax Babacar euh, leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha boobu may euh, nuyu sama yaay mère naan ko na jug ak jàmm nuyu sama doom euh, Mohamed Diouf nuyu Dadi Gueye nuyu Astan di ne depuis Parcelles Assainies naan ko yow tamit yàlla na sa yaram neex di nuyu aussi jabaram ki nga xam ne mooy Khadija Diallo nuyu samay doom Mame Diarra Penda Bébé Fallou Junior ak ki nga xam ne mooy Moussa ak Eva Diallo euh, Aïcha Faye madame Nia ak euh, madame Diouf aussi euh, Aïda Diouf yaa ngi si biir xëy na bëgg nekk madame Bokk xëy na. waaw yàlla na ko yàlla def ay Aïcha ni nga ko waxee nag loolu moom dañ koy comprendre que ni ay <laughs> PSG Real loolu moom yaakaar ne du wax wax ju bëri amu fa te des Ligue des champions bokku dëkk ku ko mos du benn yàlla ak yàlli la Angleterre ak <laughs> pomme de la yaa ngi dégg di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp mais Asi ca Mauritanie du ma ko fàtte sama sama série boobu sama soxna so sama soppe boobu maa ngi koy nuyu bu baax a baax depuis noo ak sot tuuti yaay sar ca Espagne ñoom Khadiros Ndiaye Fatma Fall di ñëpp ñoom ma Diop Mamadou Kaolack Diallo xam nga ay Mbacke Diagne ñoom ñuy suivre revue bi la l'arène bi yëpp fu ñu mën ne si àddina bi daal bëggee nañ leen ziar nañ leen ñaanal leen jàmm balu leen àq mais sama mère encore une fois maître Pape Sène maa di ko ziar di ko jaal tamit fa yi dafa amoon benn dese benn rakkam doomu ndeyam bi wàññeeku woon fële ci dëkk bu ñuy wax Mbomboy di ko ko jaal di ñaan yàlla kooku yàlla yërëm ko taxare ko aljana waaye tamit di jeexale fenn rek ndax tamit ay sénégalais lañ ay taalibi lañ te dañu gis bi sëriñ bi génn am lu mu wax dama li ma li may wax nag mooy nit yaa ngi li ko jig moo am kilifa kilifa sax ñëpp ko am waaye déggal nangul ko dafa am solo nangul sa kilifa bu la def loo nga def bu la bàyyi loo nga bàyyi loolu nag dina tax a gudd fan dina tax a sakkan dina tax a sekki waaye damay def lu ma neex damay wax lu ma neex ah boo sàgganee lu lu la neexul dal la de yàlla nañ ci yàlla musal nañu gën a amab yar gën a joxe cër gën a nanguñu yilif ñu te gën di jëfe ndigal ndigal nag ni mu ko waxee dem ndigal bi mu amee ba pare dafa ànd ak ay tere yaa ngi dégg di balu ñëpp ak di ko ñaanal mbàkke mu yàgg fi te yaa dégg nañu di moytu di tàngal xolu kilifa lool du tax kenn sakkan wallahi la sim di nuyu ñëpp di jaar ñëpp. Babacar am na solo ba suba incha allah.